Diakhar Faye dafa ma dénk lépp luy taax lu nekk ci jam ñaajo ndakaaru dafa xat comme ndakaaru dafa dañoo bëgg ubbi jam def fa ville bu bees boo xam ni fa la ñuy mën a dalal lépp loo xam ni moom mooy activité réew mi man nag ci kàttanu yàlla man la ko président de la république jaarale ko ci loxoy premier ministre man la ko dénk ñu ciy liggéey nag boobaak léegi ñu ne nag nañ ñëw ziar la Euh, wan la ni lépp la nga ñu doon ñaanal ñu ngi yëg ni yàlla mi ngi ciy jàppale di ko matale euh, fii nag ci Touba Bassirou Dieng mii mooy sama bunt ci yow lu dul ay yoon yoon ñëw naa seet si la ziar si la te ci Bassirou Dieng mii sab taalibe la jaar ak sa doom jee sëñ Koso Mbàkke nga xam ni sama wëllëre la fu ma fi ñëwee dinaa jaar këram ziar ko léegi laa fa jógee mu dalal ma man ak docteur yi ma àndal yëpp euh, dalal ñu euh, defal ñu teraanga yu rëy ñu koy sant Mbàkke ci sa tur maa ngi ànd ak secteur général bi ak euh, directrice de l'exploitation madame Diop ànd ak sama assistante ànd ak jiite personnel bi madame ñaa ànd ak madame wàdd madame jàlloo ak madame ture ak euh, baro mi nga xam mooy rek communication bi ak euh, ñëpp ñu ak Ousmane Fall mi nga xam mooy rek de gestion bu SOGIP ak képp koo xam ne rek kilifa nga ci SOGIP ñu ngi fii ñoom ñëpp Mbàkke ñëw di la di ñaan nga ñaanal ñu ci liñ ñu dénk ñu am ci ndam ndaxte sunu ndam mooy ndamal Sénégal li ñu dénk nag daf ci am loo xam bëgg nañ mu dugg sa nopp yu sell yi Mbàkke nga ñaanal ñu ci mooy ci pôlu ñaajo bi fa ñuy dalale gan yi dafa am néew néew bu ci am nguur gi tabax na fa lu bari waaye nguru président Bassirou Diomaye Faye moo war a àggale lin fay war a àggale nag da cee am bu jàmp boo xam ni Sénégal dafa war a dalal adduna bi yëpp fii ak ñaari at yi nu jëm te fan leen di dalal dafa sooxe mooy fi ñu leen war a dalal mooy hébergement bi ñun nag liggéey nañ lépp ba mu yemb li des rek mooy nga def ci sa ñaan ba nga xam ne yëf yi dina mën a door état Sénégal man koo liggéey ci liggéey bu gaaw bu ko defee bu ñu demee ba war a dal gan yi nga xam ñoo war a jóge fépp ci adduna bi ndax ren France ñaari at 2026 Sénégal moo koy aaye incha allah ñu bëgg nga ñaanal ñu ba gan yooyu bu ñuy ñëw fekk loolu ñu leen bëgg tabaxal pour ñu man leen faa dalal mu mën a yegg ci kattanu yàlla kon nag ñu ngi lay sant Mbàkke kilifa kenn du ko téye lu yàgg nga ñaanal ma man ak sama directeur yi ñu gën a déggoo liggéey bi ñu santit yàlla defal ñu ci ndam defal ko ndam président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko lii rek moo nu fi andi woon Mbàkke di la sant di la gërëm. dégg nañ kàddu yu baax a la jërëjëf noonu nga ko bëgg ñu ngi la ci ñaanal baax suñu borom gën leen cee gàtt ndoog taw feex sëñ Tuubaa ngeen amee ko ni ngeen bëggee na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah tey dañu ñëwoon fii ci Touba pour ñëw ziar si sëñ Mountakha Bachir ma ànd ak délégation boo xam ne secrétaire général bu SOGIP mi ngi ci directrice de l'exploitation d'exploitation le contrôle de gestion euh, ak ki nga xam ne moo jiite personnel u SOGIP ak waa SOGIP yëpp boo ko defee ñu yóbbaale leen muy délégation boo am si SOGIP moo leen fi yónni pour ñu ñëw yeesal seen cofeel ci xalif général des Mourides rafetlu liggéey bu baax bi muy defar pour Sénégal ñaanal ko mu gudd fan gu ànd ak li nga xam ni mooy yërmande gi nga xam ni moom la jëmmam ji doon pour képp koo xam ni ci réew mi fi nga juddoo wala fi ngay dund bi ñëwee nag ki nga xam ni mooy sama bunt ci sëñ Muntaxa muy Basiru Jang ma ma dalal yóbbu ci taawam sëñ Koso Mbàkke dalal dalal délégation bi yëpp daal ñuy jox ñu xéewlu mu ànd ak ñun ñëw ba ci waajuram mu présenté ñu waajuram naam man yàgg naa fee ñëw sëñ Mountakha di ma recevoir mais tey daf may recevoir en tant que directeur général de la SOGIP ñu ñëw nag bi ñu ñëwee kon ginnaaw bi ñu gërëmee sëñ Koso Mbàkke ci loolu mu ñu defal muy lu rëy ci ñun ñu gërëm également ba Basirou Dieng mi nga xam ni moo yombalal loolu saa suñ fi ñëwee fii ci Touba ñun ñu wax xalif bi mu ñaanal ñu ñun waa SOGIP lii nga xam ne moom la ñu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay dénk jaarale ko ci loxo yi premier ministre Ousmane Sonko muy lépp luy ay taax yoo xam dañ ko war a tabax ca jam ñaajo ñun ñoo ko war a xalaatal nguur gi tabaxal ko nguur gi ba noppi yoral ko ko saytul ko ko bal alal jum ci defoon mu mën a delluwaat ci gafaka nguur gi loolu nag dañ ci seppi benn boo xam ni dafa am jamp-jamp bu ci am centre d'hébergement bi nu bëgg a tabax ci Diamniadio jam Diamniadio lan fa def bari na lool waaye dafa am lu ca manqué mooy fu ñuy dalal ñi nga xam ne ñoo war a jëfandikoo taax ya fa jot am léegi nag loolu ñu tuddee ko centre d'hébergement dafa am njariñ lool pour Sénégal am njariñ pour ñu mën a ñoŋal li nga xam ne moom mooy taax ya fa jot am waaye ñi ngi waajal li ñuy tuddee JOJ 2026 muy Jeux olympiques te ay gan ku ko am ñu war a jóge ci àdduna bi yëpp il faut nga am foo leen dalal loolu sëñ bi ñu ngi koy sàkku mu ñaan ci projet boobu moom moom la SOGIP bi yore pour tabax ab centre d'hébergement ci pôle bu Diamniadio pour mu compléter yeneen infrastructure ya fa nekk mu ñaanal ci pour mu gën a yomb ci état bu Sénégal ci président Bassirou Diomaye Diakhar fay mi nga xam ni lépp lu nu tabax ci turam lañ koy def mu yombal ko mu ñaan ci pour mu pour pour liggéey bi yegg ba ñu tàmbali ko nu mu euh, ci nu mu gën a gaawee ndaxte délai bi dafa tuuti li nu dese ndax ñaari at dafa gaaw bu ko defee incha allah ñu mën a dalal gan yi en 2026 beneen bi mooy loolu buñ ko tabaxee dana mën a tax Sénégal mën a organiser Coupe d'Afrique bii nu jëm ci 2029 parce que Sénégal dafa nekk candidat ci réew yi nga xam ñoo bëgg a organiser Coupe d'Afrique 2029 te loolu bokk na ci sooxe bi taxoon joxuñu ko woon Sénégal ci Coupe d'Afrique bi nga xam si moom lañ génn kon nag euh, buñ ko defee comme ñi ngi waajal tamit euh, joxe suñuy infrastructure exploitant boo xam day tax la ñuy organiser ca jam ñaajo gën a bari gën a ñoŋ pour que alal ji Sénégal def ci infrastructure yi mu mën a si dellusiwaat ci moom kon loolu nag moo tax lii ñuy waajal di lu ama am solo ñu ñëwoon sàkku sëñ bi mu ñaan ci te sëñ bi nee na def na ci ñaan te mi ngi ñaan état Sénégal yeggal liggéey boobu bu ko defee muy njariñu Sénégal di njëriñu euh, ñëpp ñi nga xam ñi ngi yeewoo fii ci réew mi kon daal tey ñëw kontaan lool ci liñ fi jëlee sëñ bi teeruñu ñaanal ñi ma àndal ci délégation bi yëpp ba noppi euh, jël euh, li nga xam ni moom mooy euh, carton yi nga xam moom lañ àndil sëriñ bi pour mu dalale ko gan yi ci màggal gi mu jël ñaanal ci sojib wax ni mi ngi ñaanal sojib mu am ndam ci liggéey bi directeur général bi ak ñi àndal tamit am ndam loolu jàpp naa ni yàlla dina ko def incha allah ko defee nag muy njëriñu Sénégal ak njëriñu askanu Sénégal loolu lañu amoon lu leen di wax wa salaam. directeur ciy wax rek mooy ñu daw ndànk ndaxte bakkanu doomu aadama dafa am solo kon bu fekkente ni dañoo war a andi nit ñi ñëw màggal si li ñaan chauffeur si mooy ñu daw ndànk daw ndànk ku nekk respecté code de la route lépp loo xam ne dañ la koy tere nga bañ koo def boo amee priorité nga jël sa priorité. daw ndànk amul priorité mu xaar bu ñu nekkee ci kaw autoroute bi euh, Ila Touba bi nañu fexe ba ñu respecter vitesse yi ñu leen demande ñoom chauffeur si ba noppi ñu moytu surcharge ay nit ci oto yi ndaxte loolu mooy ndigal li nga xam ne at mu ne xalif général des mourides da koy joxe kon nag taalibe day tënku ci ndigal ndigal li mooy nañu daw ndànk ba noppi ku nekk respecté code de la route ba noppi ñu bañ a surcharge oto yi bu ñu ko defee yàlla mën na def ci ndimbalam li nga xam moom la ñëpp di tiit toujours bu màggal amee mu mu bañ am wala mu néew kon loolu laa bëggoon a wax ci loolu